ci ànd ak Mohamed Alimu Ba. dal leen ak jàmm def na bu ngeen fàttalikoo te jii juróom at gannaaw avion bu Sénégal Air daanoo juróom-ñaari nit ñàkk ci seen bakkan waaw def na juróom at waaye sama naataangoo yi ne def na juróom at waaye ndax xam ngeen enquête bi lan la di laaj sama naataango bi di journal enquête ne ah def na juróom juróom at waaye de man mënu ma leen wax lu xew xaw ma ndax de enquête bi kenn xamul lan la yéen dégg ngeen enquête est-ce que gis ne résultat gis na ay inculpation ñoo xamante dañ leen inculpé sama naataango bi di libération ne ah, na lu xewoon jour boobule ay famille ba léegi ñu ngi xaar tribunal indil leen lu réparation waaye ba léegi nii forage daal di xëddeen zéro coupable sama naataango yi ne sama naataango yi di journal enquête ne bu loolu la luy jarul jarul wax jarul ku ne xam ne ni looloo xewoon ci bateau le Joola ma maritime boo xamante ni bëriwoon na ay nit ñi de waaye ndax xam ngeen ba léegi ni kan mooy Kuba xam ngeen man xaw zéro combat ba léegi kon Sénégal mi ngi amul benn suite ci wàllu wuule kii di maître Moussa Diop wax na gannaaw biñ ko limogé ci Dakar Dem Dikk moom ak journal Source A Source A ne ah maître Moussa Diop limogé nañ la noo gisee yow luñ lay tëkkee ci presse bi di ne yow yaa fooye ak entreprise bi di jël xaalis bi di ko fooye di def mauvaise noo gisee li nu mel mu ne ah mande man xa may leen ma rek. may leen ma ba ma def passation de service su ma paree passation de lépp dina leer. waaw bu leen ti bàyyi na rek bàyyi leen ñu wax. waaw ñu koy woowee rek bàyyi leen ñu wax. ba booba nañ xam ni man du ma ñeexu ñeexbe man du ma Khalifa Sall de kenn du ma rey noonu waaye boo xoolee bu baax maître Moussa Diop génnul ci guuta ndax di dem bu am na benn communiqué boo xamante ni Macky 2012 yónni na ko ne maître Moussa Diop ñun dàq nañ la nekk doo suñu suñu it ñun dàq nañ nekk doo fa mu leer nañ nekk doo fa looloo looloo dal maître Moussa Diop sama naataango ne ah, looloo dalati ndax de Macky door na ko mbéj ci conseil des ministres bi ñu génn génne ko ci Dakar dem di kon démb Macky 2012 daf ko génne ah looloo am sama naataango bi journal quotidien ne ah ñaari tendance moo am am na ñoo xamante ni génne nañ ko beneen tendance bi mi ngi continuer nekk ak moom nu mantamel kon coow am na ci côté boobule beneen coow bi continuer di am mooy coow statut de l'opposition sama naataango yi dellu si bu baax a baax ne ah ba léegi nii d'accord nuñ ci ndaxte classe politique bi jot na ci waxtaan waxtaan xool nu ñuy defee démb sa ñu ngi doon def benn plénière waaye sama naataango yi ne ah plénière boobu joxewul dara ndaxte d'accord ñu kan moo nar a nekk kon chefu l'opposition sama naataango bi di journal Sud Quotidien jël xalimam ne lii tout ça pour ça waaw nañu xant dëgg li échec la waaw aveu d'échec de la classe politique te classe politique boo xamante ni liggéey na temps yëpp xool nu ñuy d'accord ci yenn yi waaye ba léegi nii dafa mel nii loolu jurul dara moo tax sama naataango laaj ndax question yooyu jaratina léegi discuter est-ce que jarul ñu jël question yooyu jébbal ko président ndaxte moom mu mën a tranché sama naataango journal quotidien ne ban vision la ci am ci wàllu statut bi sama naataango delloo na ci 2016 ne man ah président Macky Sall maa ngi fàttaliku ci 2016 moom ki mu jàppoon ni mooy chef de l'opposition ku nekkoon deuxième à la présidentielle waaye nag kii di Birahim Seck njiitu Forum Civil wax na ci nee na xam ngeen lan la statut de l'opposition bi ñu gis nii ay waxu naxasaka naa la amul benn njëriñ dañuy diviser opposition bi am na ay enjeu de l'heure yoo xamante ni am na fi waaw am na fi sama naataango bi di journal Tribune ne waa xakay am na ay enjeu de l'heure mu mel ni inondation ku ne gis na inondation yi lu muy def ci banlieue bi moo tax sa kii di mbay Mbaye jël xalimam wax ci Twitter sama naataango la Tribune indi ko ci journalam dooku ne ah man gis na 750 milliards yoo xamante ni jot nañ ko génnee ngir lutter contre mbënn mi ci banlieue bi waaye man lu ma jàpp mooy daanaka xaalis boobu ko duggul fu mu waree de ko man loolu laa jàpp man mi ancien premier ministre bi mu fa nekkee loolu lañ doon def waaye nag man jàpp naa ni bi mu fa jógee ci lañ bàyyi sujet boobu léegi inondation gouvernement bi intéressé ko dañu xamante dëgg sama gars yi nii ils sont sur autre chose leneen moo leen intéresse moo tax sama naataango benn journal l'observateur ne ah akay ah, banlieue bi daal daanaka kenn xamul fu mu jëm ndaxte gannaaw inondation yi mouche yi waaw cadre de vie bi daanaka neexul dëkk weñ yi foo weñ yi di jaaba jonge foo tourné léeg-léeg sax ci lekk yi sama naataango ne ah, lii lépp doy na waar man loolu laa gis am na ñoo xamante ni biñ leen laajee nee nañ sa léegi dañuy ruus yóbbu foofu gan ndax de bu bu fa yegsee ñoom ñoo koy tees ñu wax ci sport ak kii di Lionel Messi moom xam ngeen temps yëpp mi ngi xool nu muy jógee Barça moom wax na waaye nag nee na waaw bëggoon naa dem waaye gis naa yëf xaw na métti léegi nag toog na toog naa en an dinaa fi continuer nekk ci Barcelone ona waaye nag nañu xand dëgg ki wax lii wax lële bu bu dee yàllay tax ñu wax Barcelone amul dirigeant Barcelone amul dirigeant man la maa ko wax man mi Messi sama naataango journal record yokkaat ah, nee na dirigeant ma attaqué en justice boo xamante ni daanaka club de ma vie moo ma jox lépp loo xamante ni daanaka am naa ko tey sama naataango journaliste Stades kii di Messi daanaka bi mu ne day jógee Barcelone famiyam bi d'accorduloon dañoo tristoon ñi bëri jooye loolu nag daanaka drame familial la woon na ci sunu làmb nag Khadim Gadiaga président Rock Énergie wax na ci président CNG bi nee na kii di Tyson bu fekkee nii moom moo na a nekk président CNG wuutu kii di Alioune bu yeboo ñoo xool feneen ndaxte ndaxte jàpp na nii du waaja bi mu fa nekkee dara intéressé ko woon il était toujours dans un coin bu dee man man man mi man mii Khadim Gadiaga man poste bi intéressé woon jërë ngeen jëf. Savon de Marseille Alphée